dañ ko tëggee ñu def ko tuddee ko gala de l'unité des femmes de Benno Bokk Yaakaar invité ci jigéenu na Bokk Yaakaar bi pare parrainé woon ko ki nga xamante ni mooy le président le le ministre Augustin Tine marrainé ko ki nga xamante ni mooy euh, Seynabou Diéguène ñoom ñaar ñëpp nag ku ci ne yóbbu nañu say carte euh, annoncer la ko wax la ko def liñ ci war a def yëpp xëy na yàlla moo dogal ñu am ay empêchement ba mënuñu ko teewee waaye ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal. waaye foule bi nga xamante ne moo fi nekkoon ak assistance bi nekkoon fii à travers les autres responsables ku ci mel ni madame Marème Diop Silla ku ci mel ni euh, euh, waa kër docteur Pape Amadou Ndiaye le ministre euh, de l'artisanat waa kër honorable député Abdou Mbow waa kër ki nga xamante ne mooy Maodo Malick Mbaye le directeur général de moo yebal fi une forte délégation daanaka moom sax defar na bés bi ak ki nga xamante ne mooy waa kër Abdoulaye Dieye le président du mouvement Siggi Jotna ak waa askanu rab nga gis sama jigéen euh, Abibatou Fall nekk sama ginnaaw ñooñu ñëpp ñëw teew ak euh, sama jigéen Mame Mbaye Guèye tabarkalla ak euh, ñi nga xamante ne ñoo fi teewaloon ki nga xamante ne mooy madame Yaali Cissé nekk haute conseillère ñoom ñëpp teew fi wane nañ seen détermination bu baax a baax a baax ci ànd boobu ngir jigéen ñi doon benn pour mën a boole li nga xamante ne mooy kii waaye di remercier bu baax nag Sayer Mangane waaye di defal nag ma spéciale sama rak joo xam dama ko ci doon sargalaale muy Birane Mbaye di nit ku baax di xale boo xamante ni APR gépp ràññee ko ci taxawaayam ak ni mu daan yàgg jàppale président Macky guddi gi daal loolu la woon ngir unité ànd booloo doon benn joxante loxo kaf ànd liggéeyaloo ci xol bu laab waaye di remercier bu baax nag président Habib Kane moom it yabal fi délégation bu am solo jàpp ci bis bi lool ñu koy sant ko gërëm bi daal loolu la woon pour unité ak àndandoo booloo waaye li ma ci gën a dàqal mooy laataa muy jeex président Abdou Mbow moom moo ñëwal boppam ba ci biir saal bi loolu du lu ñuy saluer parce que wane na toujours comme ni mu ko yàgg wane ni nga xamante ne moom lay taxawoo président Macky Sall. moo tax je sais bien c' bien c' est bien c' est bien libellé dama ni gala de l' unité des femmes de Benno Bokk maanaam jigéen ñi bokk Benno Bokk Yaakaar mais ñi nga xam ne ñu ngi ci opposition bi nag ñooñu bokkuñ ci parti ñu Benno Bokk Yaakaar mënuñu leen force forcer que ñu ñëw mais jigéen ñi nga xamante ni président Macky Sall leen ñor euh, APR la ñëw Benno Bokk Yaakaar ñoo leen ñor ñooñu la ñu boole ngir ñu àndandoo doon. waaw fi mu ne nii euh, kenn nekkagul sama ginnaaw du luñ ma jox du alal duñ ma te dem ñëw suñu initiative yi bopp la ñuy demee ba fii ma taxaw du ci benn ministre ci ñi nga xamante ne wala ci benn ci ñi ko ne ku ci dugal sa gërëm ñu ngi leen di di leen gërëm parce que la tax choix bi tax ñu def ko alal taxul ndax gis nañ ni Augustin Tine kenn du wax ci euh, Benno Bokk Yaakaar moom mu nekk tête de liste départementale nekk coordonnateur pendant douze ans nekk maire de Fandène pendant neuf ans liggéey liggéey bu am solo ñu koy jéggaani di ko jox keneen kon dañ ko ciy sant sargale ko ko madame bu jegeen bokk na ci jigéen ñi nga xamante ne ñoo njëkk ci APR waaye njëkk ci ci ci barabit njàmbaar la nit sax dina mujjee ci barab man la Cheikh Rafal njëkkul sëñ Touba mm. te teewul moo ca moo ca man bañu ba fu ñee jërëjëfe sëñ Touba ni ko jaraw la ki Cheikh Rafal kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm lool lool lool lool loolu la woon rek mais kenn nekkul suñu ginnaaw di ñu ñun ñoo am initiative bu rafet bëgg ndamal président Macky Sall parce que bu doon te benn teraanga defal nañu ko tey am na yéene ci réew mi am na yéene ci dëkk bi ñu xool lépp lu nu mën a fexe ngir ndamam yokk ñu ñu ñu def ko bu ñu sañoon nag ñi ñu ko tudde teew suñu wet mais gisuñu leen mais merewuñ leen itam bi mooy première édition ñu def waaw dañ ko dañ ko def ci njëlbeenu campagne bi lañ ko def pour koy jigéen ñi yëpp àndandoo parce que bu fekkee ay jigéen dajaloo nañ kaf ree laxasoo comme niñ ko defee lëngante fóonante kàppante yaakaar naa ni euh, euh, yu bari yu nekkoon seen seen seen xol dina dañ ba tax euh, dinañ mën a campagne jàmm àndandoo ci xol bu neex waaw kontaan kontaan naa parce que euh, woote ñu wuy si la yombul te euh, salle bi bu doon te euh, fukki nit a fi nekk sax sa moo fi nekkoon sax sama xol sedd waaye gis naa délégation bu am solo ñëw jigéen ñi ah, wane seen yéene àndandoo teew sargal si ma loolu mën naa ko ñi absenté it merewuma ci kenn xëy na peut-être ab proximité yi métti na am na ay programme suba loolu rek a tax waaye merewu ma ci kenn parce que doo woote unité ba pare di indi lenn luy wane ni da nga am divergence moo tax merewu ma ci kenn maa ngi leen sant ñoom ñëpp maa ngi di gërëm waaw damay li may dénk jigéen a APR mooy ñu àndandoo rek booloo doon benn euh, euh, ànd bokk liggéey ku ñu bañ a jiital suñuy ambition personnelle jiital ambition bi nga xamante ne mooy c'est l'ambition euh, commune nga xamante ñun ñëpp ñoo koy bokkandoo ngir ndamal ki nga xamante parce que nag ci échéance yu doy waar la ñu jëm échéance yu doy waar la ñu jëm te buñ ko ñàkkee maara day taali ah dina tax président dootu mën a gouverner nañ ko bëgg waaw kon euh, stabilité du pays day day day troublé wu te loolu ñaanuñu ko yàlla dañoo bëgg rek am ndam àndandoo am ndam ba ah, ah, ah, euh, initiative yi nag euh, c'est à saluer woote wuñu lenn boo bennoo yaakaar nañ ko suñu amoon nag lu nu gën a gën a nag ñi nga xamante ñooy tëdd fili te ñu tudde woon na ko ñu gisoon leen seen wet mais amul problème euh, euh, kontaan nañ bu baax nu tey suba ñu àndandoog ñoom ci liggéey bi nga xamante ne mooy président parce que euh, boo boo nekkee ci dynamique gu dajale ak ak wut ndam lépp lu koy xajamal da koy dàq te man du ma ne nit ki baax na ba pare wëlbatikuwaat naan bopp man man loolu mooy sama jikko ku ma defal lu baax ma sargal la ku ma ko defalul tey it tey ma sargal la xëy na empêchement ak li nga xamante ne mooy ay ay programme chargé moo tax rek yor santé man noonu laa ko jàppee waaye meruma ci